waaw fañña njoole yaay ma bugaan xew-xew am na lamb ji rëy fu muy amee ñu ne foofu ca njoos moon fay njaga production le nouveau promoteur moo fa woote tegal na mbëri un million ci ñaari drapeau poids léger ba trois cent mille la poids ba a ah, ñu ne sept cent mille le trente octobre lay doon foofu ca njoos moon pare ba ñu ne kan la ñu ne Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye le futur maire de Tataguine animation ba mbayang lum moom fay nekk a ki nga xamante ne moom mooy moomoo ngom waaw kon dina neex dina yëngu ñu ngi leen fay woo yéen mbokk amateur yi yéen mbokk mbër yi ah le 30 octobre ca Ndios moon nee naa leen du mun a yomb ndax fa njaga moo xewle